mu wax ni nabbahtukum an ala kadib bada lii xam mu abada mm-hmm. yooyu naa ñëpp ñëpp xam ne lañ non da nga ko naa coono yu méttee te yàgg ku jiitu ngërëm lii sax lii mm-hmm. Mm-hmm. waaw nit ñi dañuy seet dañuy seet teraanga jeex xewal yi waaye duñu seet lu ko jiitu wallaay waaw te bu muy wax ni makkante ni ca war a karam na waaye lu ñu ci teg baada dayqin la ilaha illallah ba da dayqin mm-hmm. yaatu naa de fu waay waa lamb la ma waaye mm-hmm. xatoon naa fii ci réew mi sama tur sax ku duñ jàppal ngay ak wér loolu amul lu ñu def murid yi fii wallaahi ndeysaan nangu seen i kër lakk seen i kër du ma leen du ma leen am na si si mu nekkee jolof rek ci mm-hmm. yéen rek jaraaf am na ci buuna njaay moom jaraaf joo xam ne ji oh. amul lu lay yeew murid yi sax def na ko yéen ci naaj ba yow si ñaari naar yoo xam ne dañu woon gànnaar yu jëm si yéen waaye gannaaw mu ñuy suñu tala jëm rek mu yow leen foofu pour coono ga ëpp na ba am na ci naar bu doon def ay abiyaat man dama xamatu waaye ma nga tàmbalee daal waaw booba deraaf ja mu ngi tudd maxeet maxeet waaw waaw ma ne ko yaa rabbana yaa zil bilaadi yaa muxiit xubayna ubayna abdika maxeet booba jur yi métti na te te te tar na lool waaw ci sëriñ bi laa jëm rek waaw waaye fu mu ko mës a waxee rek mhm. maa leen na ngeen muñ te xam ne saaba yi mhm. ñooy seen bàyyi ci diine rek yu lëpp li ngeen daj lay ndeysaan lay kon loolu mhm. moo tax ma il faut nu gore ndax sëñ bi moom ah ci suñu mesure gi téeréem boobu wax na ni maa yomba am na fa juróomi at yoo xam ne gabon réew mu bari ndox la nee mbaaram ñax la fa def mais ngelaw bi jëkk ñëw moo tasaare mbaar waaye bu tëbu sooy ne mu dëpp ci alxuraan ji rek oh. ba alxuraan ji du tooy boo noppi mu wér yéen hmm. loolu suñu Moussa xanaa hmm. foofa la am ba tawti woon ba yor ma jigal ko ma yéeg sox ca wal ma loolu kitaab laay fu xaaj ne tooy na ki nag ba yàqu waaye alxuraan ji moom du tooy mukk hmm. te loolu juróomi at la <laughs> nga xam ni foofu dem na ba xayra xuruju ruux yi Hmm. غير خروج روحي لاقيته هناك من المشقة والتعب. la ilaha illallah am kon. lu lu génn guru rek nee na dañ na ko. faatu rek ci des dañ na ko ci mbirum coono. te ci ci biir loolu. ci tartar yooyu mi ngi bind borom Daaru Muxti leetar. di ko cee wax ni bi mu ko nuyoo ni ko alamu ayyuhal muridiina wal muridaati bi anni maa gafaltu ankum tarfata ayni. la ilaha illallah. xanaa xamuñu kooku. diggante boobu moo na tal boppam moo tal leneen. nga xam ne lu mu wax borom lu mu wax borom daaru nga ne. waaw wax ni ko waxal maa ngi xamal murid yu góor yi murid yu jigéen yi. Mm-hmm. ni sàggane mu leen fàtte mu leen. toll xibri bët. <laughs> walakin kuntu mustaqbisin laa asta'mirukum wa laa amliku lakum illa bi saa'i'i. Mm-hmm. dama nekkoon ci mbir moo xam su yëwanul seen mbir yi mbir kenn du yëwan wa bashirikum nag leen di béggal nag ni lidaka cheen fi xam loolu nag jeex na tey ci man wala ñu xëri ilasta ma ila saxal ma soxla ko soxna wax na li ma des tey dal mooy jublu nag ci yëpp lu yëwdal seen biir àdduna xara ci laa jublu lu yëwdal seen biir àdduna xara ci laa nee na coono coono yëpp jeex na léegi kon waaw waaw la ci la ci des mooy waaw loo xam ne yëwnal si mbirum àdduna ak alaxira moo ci des waaw atatar yooyu mu nekk mu mm. di wax fàttaliku ah, man de dama xam xam ndax ndax ndax ndax moom am na lu mun a jaral mm-hmm. waaye moom de am na lu ko muri jaral wallaay wér na ndax tasa yi ma la wax de. Mhm. moo na tal leneen. Mhm. waaye mi ngi wax nii di murid di leen xamal lii di leen seen xel ci loolu. kon kooku mhm. ah, euh, a gënal suñu lépp. kon ñiy ñëw. waxoon naa ko dama li ma jàpp mooy. Euh, ba tey dañoo déggul laal waxi sëriñ bi xëy na. ndax looy am na ma ko ci defal. kooku doo ñu doo ñëw di ga dëgg la ñu am tawfiix bu nekk Tuuba. ñu ñoom di leen fekk si. kooku tawfiix la. waaye nag bu xeeb sa téeméer boobu. Mhm. ak kër goo mën a dal. Mhm. ndax jëf la borom wax. Mhm. yow yow loo defal suñu ci bis bi jàngoo alxuraan jàngoo xasida joxe woo xaaj dafa da tëdd rek ñu lay tëral yow màggal si woo defal si dara jëloo fi dara loolu nag li mu ta bàyyi xel